Ibra Diouf maa ngi lay nuyu. waaw kontaan lool ci dal si matinal bi tey Ibra Diouf ñu fàttali ni yow ndongo nga ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru yaa ngi nekk ca faculté de sciences et techniques nekk ca master de euh, SVT euh, ñu gën la xam nag ci caporal yow nag euh, Ibra Diouf ndax mun nga ñu wax lan moo wundu grève boobee nga xam ni ñii di administration bu service bu UCAD daal di amal ndax loolu am dafa am impact ci dossier yi nga xam ne da koy lijjanti foofee ndax nekk na loo xam ne lu yomb la aussi ndax grève bi mi ngi wéy di am ba tey. waaw Fatoumata maa ngi lay jaajëfal bu baax di la nuyu di la di la gërëm bu baax tamit ci invitation bi nga xamante ne maanaam moom nga ñu def nii ndax euh, xëj na dinañu permettre dina tax maanaam li nga xamante ne moom lañ bëgg a wéyale mm-hmm. jàllale ko ba ñëpp xam ko nit ñi mën ñoo dégg waaw comme ni ko waxee léegi maanaam tey dafa am lu am au niveau de waaw muy rawatina à la faculté des de techniques nga xamante ne maanaam foofu laa nekk waaw man maa ngi man maa ngi nekk étudiant a master de SVT à la faculté des sciences techniques et par ailleurs aussi liste bi nga xamante ne moom la ñuy wax la liste réforme dans cette liste man maa koy jiite. Mhm. waaw donc euh, pour vous dire que maanaam ñun ñooy les représentants des étudiants a la faculté des sciences techniques. Mhm. léegi dafa am la nga xamante ne maanaam tey dafa am xew na fi. Mhm. boo ba tey di koy naqaru waaw di ko naqaru di ko ñaawu ndax tey euh, tey ñun bu ñu nekkee ay ay njiitu étudiants. étudiants yi ñëw ci ñun wax ñu seeni wax. tey yoon la ñu jàllale ko wax ko fañ ko war a waxee. Mhm. jooyee ko fañ ko war a jooyee. Mhm. ndax tey euh, boo xoolee grève bu pàcc yi. Mhm. Euh, keroog bi ñu ñëwaatee ils ont décrété sax quatre vingt seize heures quatre vingt seize heures yooyu noonu suba la war a jeex. te avant noonu ñoom ñu ngi doon grève da gis étudiant soxla benn dossier administratif. ñëw au niveau de la faculté des sciences techniques toog foofu di leen xaar. mais ñoom bu ñu ñëwee wax dëgg la dañuy ubbi seen buntu dem defar seen AG décrété waat démarche mhm. waaw ça veut dire que tey am na étudiants yi nga xamante ne maanaam tey ñi waroon a def prescription campus soir mhm. et étudiants yooyu noonu mënuñu jël seen i dossier mhm. mënuñu jël seen i relevé pour def euh, procédure boobu nga xamante ne mooy campus soir ndax de euh, rigueur bi pour euh, le dépôt des pour le campus soir devait s'arrêter aujourd'hui maanaam tey jii nga xamante ne maanaam moo tam rek fukki fan ñi juróom juróom ci weer wi ñu nekk nii ci la waroon a donc maanaam grève bi kon moom nañ ne na la nga xamante ne maanaam def na ko ci étudiants yi la nga xamante ne lu metti la hmm. léegi nag ci biir loolu maanaam ki nga xamante ne jëwriñ gi nga xamante ne maanaam moo ŋànk ministre euh, études universitaires mm-hmm. comme le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation mm-hmm. Moussa Baldé mi nga xamante ne il était même à la faculté des sciences techniques mm-hmm. woo nga xamante ne ce sont les acteurs mu toog ak waxtaan ak ñoom et de manière définitive problème bi nga xamante maanaam day am na ba ba dem bay laalaale sax étudiants yi quoi waaw ndax mën nañ xam yéen seen nekkin foofee ca université ba euh, ndax autorités yi ñu ngi koy xoolaat ndax boo xoolee li leen di faculté des sciences et techniques li ci ëpp mën naa ne sax en général faculté des sciences euh, maanaam seen laboratoire yi matériel yi ngeen fay jàngee nekk na loo xam ne dafa màgget loolu lan ngeen di sàkku ci nguur yi ndax ñu indi ay saafara ci li ni loolu moom wax dëgg la dinaa ci sawar wax dinaa ci sawar wax te tamit wax dëgg nekk na la nga xamante ni itteel nañu ni toog ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ndaw yi nga xam ne nous sommes à la faculté des sciences techniques mm-hmm. ndax boo xoolee l'année dernière euh, euh, Cheikh Amar Anne lorsqu'il était ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ñëwoon na au niveau de la faculté des sciences techniques ñu ko wax ñuy suñuy doléance ne ko kat euh, monsieur le ministre fii nga xamante ni mooy faculté des sciences techniques parce que bu ñu naan faculté des sciences techniques dafa am lu koy lu koy war lu a mandargaal mooy la pratique. Mm-hmm. la pratique au détriment de la théorie. Mm-hmm. tey te ñun dans les de TP amuñu ay jumtukaay ya nga xamante ne maanaam dinañu permettre. Mm-hmm. ñuy def ces pratiques là. fenn rek euh, boo xoolee dans les départements boo xoolee faculté des sciences techniques am na département biologie animale et département. chimie. Mhm. ak yeneen département yi. Mhm. mais boo xoolee dans les salles de TP physique foofu amul benn matériel ba nga xamante ne maanaam nekk na fa. Mhm. nga xamante ne dina permettre étudiants yi. ñuy def leurs travaux pratiques. certains matériels ñoo fa nekk ay ressort ak ay affaires yi ci ay ampermètres tous ces ampermètres là ne sont pas opérationnels la plupart de ces ampermètres là ñoom dañoo yàq. waaw donc pour vous tey tey tey tey tey tey ce dans l'urgence mooy particulier à la faculté des sciences techniques mm-hmm. ci côté matériel daanaka maanaam dara amu fa mm-hmm. waaw fi ñu fi ñu sentir daal ne am na ay matériel yu fa xaw a nekk mooy au niveau du département de biologie animale mm-hmm. te wax naa la ko léegi ci matériel yi nga xamante ne maanaam le président de la république son excellence Macky moom la doon utiliser ba mu fi nekkee en tant que maanaam matériel yooyu noonu ba tey ñoo fa nekk donc matériel yooyu la bi bi ministre bi ñëwee liñ ko wax ci suñuy doléance mooy mu équiper lu tous les salles de TP. Mhm. ci loolu la ñu waxtaanoon ba d' accord ci mais booba ba tey gisuñu dara dégguñu dara. Mhm. y' a un autre qui est là peut être xëj na moom nag suñu doléance yooyu noonu mais ñun suñu sañoon ñu mën koo gis sax gën koo rappeler ne maanaam lii muy kat. Mhm. mooy jafe-jafe bi nga xamante ne maanaam moo am au niveau la faculté des sciences techniques dans les salles de TP. d' ñu wax ci wàllu restauration université ndax bëgg euh, bëri na euh, li ñuy dégg université euh, ndongo yi di coow nekk lekk bi foofu demeewul noonu ndax jamono. jamono ji changé nañ ko euh, am na qualité ak waa hygiène. waaw jërëjëf Fatimata waaw côté boobu tamit wax dëgg ne la dinaa ci sama wax ndax euh, boo xoolee euh, ñun ñi nga xamante ne maanaam ñun ñooy njiit étudiants yi. tëj hmm. nañoo bind ci mbedd mi di sànni ay xeer. mbala hmm. ñuy grève mbala ñuy def leneen ak leneen ak leneen donc maanaam loolu noonu xëj na tey day wane ne xëj na ñi nga xamante ne maanaam tey ce sont les di kut ko en l'occurrence le DG Maguette Tène mhm. mi ngi def euh, benn liggéey bu mucc ayib mhm. ci wàllu restaurant bi au niveau de l'université Cheikh Anta Diop mhm. ndax boo xoolee ñun tey kenn sexaluñu bekk suukar ba nga xamante ne dañuy ñuy wax la nga xamante ne maanaam tey def duñ ko def parce que euh, maanaam ñun benn contrainte ba nga xamante ne tey suñu fi gisee la nga xamante ne maanaam tey la nga xamante ne dañ ko war a wax ba ñëpp dégg ko ñu wax ko mais li ñu fi gis pour l'instant mooy que yooyu wax dëgg na yàlla ñu ngi góorgóorlu ci côté restaurant universel parce que boo xoolee am na euh, restaurant yi fi nekk waaw mm-hmm. dañoo dañoo fexe de telle sorte que maanaam restaurant yi ñu leen di alterner maanaam restaurant bi nga xamante ne maanaam tey euh, bu fekkee añ bi la onze heures la waroon a ubbi arrêté quatorze heures am na ci restaurant yi nga xamante ne dañuy dem ba seize heures mm-hmm. loolu nag dañ koy def tout simplement pour étudiants yi nga xamante ne maanaam erreur yooyu noonu xëj na da leen di fekk ñu nekk vaquer dans préoccupation pédagogique maanaam ñuy def cours maanaam ñuy def ay TD mbala ay mhm. wàccee erreur yooyu noonu mu leen a permettre ñu mën a añ bu mhm. baax parce que tamit mhm. on peut pas parler du volet pédagogique sans pourtant remplir le volet social nit ki maanaam tey dafa war a tëdd fu baax lekk ba man ba mandi soo a mun a jàng bu fekkee ne maanaam condition yooyu noonu maanaam ne sont pas des conditions euh, favorables mm-hmm. tey étudiants bi tey pour mu réussir dans ces études universitaires day nekk la nga xamante ne xëy na lu métti lay doon. Mm-hmm. léegi nag am na tamit beneen restaurant ba nga xamante ne. Mm-hmm. c'est aux environs mm-hmm. ba nga xamante ne le DG di coûte à lancer celle-ci. léegi sax gaa yaa ngi commencé di ko construire di ko defar pour régler de manière définitive le problème de la restauration nga xamante ne maanaam nous sommes plus obligés ñu jël benn restaurant naan ko demal ba heure bi demal ba heure loolu daal mooy li nga xamante ne pour l'instant wax dëgg la yàlla nekk na fi ñu mën cee wax. Mhm. taw tamit di ko rafetlu nag tamit di encouragé dernier bi. di ko mhm. xamal ne tamit bonne continuation mhm. ndax tey li nga xamante ne maanaam tey li nga koy def. ñun rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax en tant que représentant d'étudiants. ñu wax ci leneen moo di li nga xam ne moo di seen wàllum codification ndax mën nga ci ñëwaat tuuti rek ci tënk. waaw waaw concernant les codifications xam nga euh, codification comme ni ma ko waxee léegi ci kalaama pédagogie ak codification sociale léegi nag euh, en général il est de coutume mhm. su ñuy codifier mhm. dañuy bàyyi ba l'installation des amicales mhm. dans les facultés respectives mais léegi li ñu jàngat mooy que essence yi may wax ak yow nii. Mm. maanaam fi ñuy wax la faculté de médecine de pharmacie et odontostomatologie estomatologie mm. ak la coordination des écoles instituts ñoo am amicale légitime mm. reconnue mm-hmm. waaw mais les autres facultés comme la faculté des sciences techniques mm-hmm. bi ma nekk mm-hmm. ak la faculté des lettres et sciences humaines ak FADEC ñooñu ñëpp ku ci def sa mandat amical jeex na léegi nag normalement li xaar mooy le renouvellement des bureaux de ces amicales mhm. bu ñu demee nag te loolu nag mu am cent pour cent qu'il y ait ce qu'on appelle électoral. Mhm. léegi nag booba tey ñoo ngi xaar. Mhm. ñi nga xamante ni ñoo jiite étudiants yi. di wax tamit di alerte di di wax tamit le recteur le recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Ali Mbaye mu organiser ñu ay élections. nga xamante ne maanaam dinañu permettre ñu mën a def codification dans les meilleurs des parce que tey normalement bi ñuy ñëw au mois d'octobre. Mm maanaam dañu waroon a codifier avant ñuy regagner les chambres. Hmm. mais pour des raisons de sécurité. Hmm. de stabilité et de paix. Hmm. au niveau du campus social moo tax le DG du COUD a jugé nécessaire. wax étudiants yi ne maanaam étudiant bu ne. mën na regagner son chambre. waaw. delluwaat maanaam fa nga xamante ne maanaam fa la dëkkoon daaw mu dem delluwaat fa. jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il y ait au nouvel processus de codification. d'accord mais nag boo ba tey ñoo ngi xaar. li mhm. ñuy mais nag euh, ñoo ngi xaar rien n'est encore dit mais xam naa ne. Mhm. dans les jours à venir. fii ak maanaam balaa ñoo jël fet wala leneen wala di mois de janvier bi. d'accord maanaam les acteurs concernés comme les étudiants. Mhm. les représentants d'étudiants. le groupe les doyens de faculté. maanaam dinañ toog waxtaan. Euh, xool maanaam li nga xamante ne maanaam buñ ko defee. coow du am xuloo du am naayoo du am dara du am. dëgg la ñu defee ko noonu. Mhm. Euh, incha allah rabi. Euh, ñu jàll ci beneen laaj moo di li nga xam ni moo di daara ju kawe jooj du UCAD dañ ko daal di reconnaître meilleure université ci Afrique sowu jant euh, ban jàngat nga ci am. waaw waaw xam nga loolu noonu maanaam tey bu amee. c'est parce que maanaam tey. dafa am na nga xamante ne maanaam dugal nañ ci seen loxo. Mhm. xam nga léegi en tant que propos maa ngi lay xamal ne maanaam université dafa am ay entités ya nga xamante ni ñoo ko ŋànk. Mhm. muy les PAT les étudiants le personnel enseignant et de recherche. Mhm. maanaam tey s'il y a des résultats bu fekkee ne maanaam ñun en tant que université. Euh, Cheikh Anta Diop Dakar dañoo am ay résultats yu baax. ba ñu koy tudd fu ne. te parce que maanaam am na ña nga xamante da ci am solo. Mhm. parce que étudiant bi tey bu fekkee ne maanaam lekkul naanut sàngul ba set. Mhm. kooku noonu maanaam tey du mën a jàng du mën a def résultat. Mm-hmm. waaw donc maanaam léeg-léeg du coup moom moo nekk le le le premier acteur. Mm-hmm. de cette de cette réussite ou bien de cette de cette de cette considération là qu'on a mm-hmm. donc maanaam mooy le premier acteur bi nga xamante ne xëj na maanaam tey li muy def xëj na moo am. résultat boobu noonu. maanaam li ci li ñu ciy dolli tamit maanaam étudiants yi. comme ni ma la ko waxee léegi parfois boo ñëwee au niveau du cadre social. maanaam vers 17 heures mbala 18 heures yooyu noonu maanaam li ngay gis étudiants yi ñu bëree fii université ci quatre ci quatre yi mhm. da foog ne étudiants yi ñoom ils ne sont que là que pour chamailler. Hmm. mais par contre boo demee au niveau du campus pédagogique maanaam ou bien ngay dem restaurant ci corniche beeg yooyu yooyu noonu da ngay gis hmm. étudiants yi ils sont partout fu ne la ñuy nekk. da ngay gis ka nga xam ne day lal basangam kii lal si jaataam. kii sal hmm. lal leneen ak leneen ak leneen ak leneen di jàng. kon maanaam l'université Cheikh Anta Diop a toujours été une université d'excellence. excellence boobu noonu jusqu'à présent. mi ngi fi gaa yaa ngi ciy dox di ci wax a a a a di Ibra Diouf yow étudiant nga ca faculté des sciences euh, techniques euh, ca UCAD Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal.